sàkkara yàlla sàkkara yàlla kenn du ko am di bon. ba nañ ko ba sàkkara yàlla lañ ko tuddee. kenn doonu la Pape barke yàlla dama koy kaañoo rek ma ñàkk sama ndey bu ma duggee ci kii damay réew bëgg a dee. Uh, daa si xorom quoi càmm tara nga jëlal balaa bàyyi moom lay. waaw boss. boss boss. boss bàyyil oustaz Modou Fall. non oustaz da <laughs> budul budul dara sax. yéen a bokk Serigne Babacar Sy. waaw yaa may dégg. waaw mais oustaz moom dafa maa war a nekk ci. non oustaz non oustaz da ngay xam ne oustaz xale la oustaz jeune la kom yow. yaa ngi dégg dafay fo. Ah, ah, ni nga amee droit fo noonu oustaz Mor amee droit fo changer bégee. dawal welo ànd ay ay jabaram doxantu. <laughs> di wax lu ko saf di wax lu ko neex parce que xale la xam nga xale bu am xam-xam. moo moo moo mag mu xam am xam-xam te saay-saay ñoo yem jiko yaa ngi may dégg waaw waaw oustaz Mour Fall la jàng na macha allah am na xam-xam mais man li may rey mooy douze élèves yi ngay wax yow Adama <laughs> yow dëgg nga fii de douze élèves moo nekk ci daara ji xanaa gisoo vidéo daara ji <laughs> xanaa gisoo vidéo yi baal sa caaxaan waaye douze élèves douze la de kenn ki lay wone ko teral am mayeta arabal ko na neex nag la koy wa waa léegi ma wax la benn affaire waaw xam nga douze xale hmm. douze yëpp nga def ci ñoom alxuraanul karim waaw dëgg la xam nga lu màgg la ci suñu borom non moom moom xoolal oui ma jàng na de am na tuuti xam-xam wax dëgg yàlla xam na alxuraan lenn mooy problème am gaara waale ak hmm. bi muy def ci internet bi kese ma la moo ma ne la dafa nekk oustaz bu maasee jamono hmm. xam nga oustaz bu maaseeg jamono day doxee ni jamono di doxee ndax Serigne Cheikh Tidiane si almaktoum xam nga lan la daan wax. Hmm. da daan wax ni dee leen natt doxinu jamono ndax képp ku des démb rek sa tey réer la. waaw mais du cëru oustaz du cëru oustaz sa xam nga lan mooy cëru oustaz doomu nay. tafsir ak Abdourahmane Gaye di nga ko déglu. Mhm. ay Moustapha Gaye. Mhm. ay euh, Adi Niass. Mhm. loolu moom mooy jàngale xam-xam. yow oustaz ñooñu mag ñi yar boo dee déglu oustaz heure yi da ngay da ay jooy boo dee da nga cëru oustaz nga bëgg a jël ci ñooñu ngay roy. ñooñu ma wax la dara ma dara. demal déglu aadi ñes rek. waa xaaral ma wax la waaye yow Adamo déglu ko nag nekk ci télé bi naan yow sa wujj bu la tooñee déglu tegal heure mhm. rek Adamo. Mhm. waaw Thiam Thiam Teranga moo yey di na parce que Adamo yow danga am lu nekk ci yow loo xam ne. Michael Jackson sax boo ko toppee di ko coo nga fay ko yow danga am loo xam ne ko topp bu moytuwul petit pas day fay da ngay fayaate de yow mhm. yow koo ba dëgg gis nga man ni ba nga ma fi songee damaa jóg takku woo samay mbokk ne leen jog leen day fayaate sa kanam gu ndaw gi da moytuwul fay ko da fay nit ba mu ne tapaj merci Mbaye dama ne Hmm? man keroog ba nga ma songee damaa jóg bu sel bi woon sa yaay ne la bàyyin Pape Mbaye du ma bàyyi da ngay fayaate parce que toog da nga am followers ba pare sa làmmiñ bi xaw ma lu ci ne du ma ne barke la xaw ma lu mënti doon da ngay fayaate moo Modou Fall li muy de bëggu ci dara gaaruwaale gi muy gaaruwaalanteeg yow bëggu ci dara waaye fi mu ne bu sañoon nga bàyyi ko waaye yow doo bàyyi te bés bu la bàyyee boppam nga fay ko te Oustaz ndaw yaa ci te palaasam la ñu bëgg ne la moom posam lay xeex oustaz yu ndaw yaa ngi fii oustaz yu ndaw yaa ngi fii yor seen yor jàng alxuraan ba pare gën a mën a waaraate te fi oustaz Modou Fall siis bi mu toog la ñu bëgg a toog te yow bu sàgganee nga fay ko te ba ko dem ba sa koste lañ koy def moo tax nangu laa mhm. bàyyee boppam nag yaa koy yërëm bàyyi ko du bàyyi de da nga saasaay yow ku saay-saay nga aadama ay ku la bàyyi nga fay ko non pourtant oustaz nag daa sonal boos de dama ne Mbaye wóoree waay. saay saay. li ma lay wax dëgg la amoon na fi ñu fi jaar ñu bari yaa leen fay. day fayaate da saay saay. yow sa yàq dafa garaaw parce que xam nga li tax sa yàq garaaw sénégalais yi dañ lay déglu. Ah. yow dong yow dong yaa am ci senegal nga def video taxaw ak sa ah. laas sa kanam gu ndaw gi mel ni lance pierre. nga taxawul sel moo goo dafa goo dara di xëpp xëppal sa bët yi dugal ko une heure de mu dem deux cent mille wala quatre cent mil loolu amu ko loolu yaw dong yaa ko am léegi nag ku am loolu su la waxalee lu baax day dem waaye su la ci waxalee lu ñaaw sénégalais nga xam ne lu ñaaw rek lañ bëgg a déglu <laughs> dañ koy dëgg te oustaz Modou Fall du nangu loolu yow yaay seet ci yàlla rek nga bàyyi ko non dinaa bàyyi mu seet bàyyee ndax tey dee garaaw xëy mbaaye loo ko dugal dina ci bool li ci bokkul bàyyi ah wax naa dëgg léegi yow gis nga gis nga waa léegi Brésil Brésil ñëwal. Brésil. alama Oustaz Modou Fall bàkk si Tuubaa Mbàkke ah fa defu naa dina xaru gis nga moo soof moo war a bàyyi un deux trois salaamaaleykum mu naan tët muy dox bi moom Sonko nag moom Sonko la mën a supporter moom <laughs> moom problème am la. problème am yëpp Oustaz Modou Fall problème yëpp Sonko la soof chaque instant mu nit yee eh, waaw lii laa laa la laa laa toog toog muy dox ak tëdd muy dox tëdd muy dox ma sax damaa o vidéo bi nga <laughs> nee na nee daa daa dafa soof dafa dafa moo bëgg ay détails. Oustaz si ne ndeysaan da lay wan ne da lay wan ne xale la ni yow. mais Mbaye xanaa yow doo déglu Oustaz ay waxtaanam. man duma koy déglu man vidéo yi ci yow laa ciy yem. waaw mais ko dee déglu nag di nga di wax di nga di nga. mais nag moom mais nag moom wax fa dëgg yàlla conseil bi ma koy jox mooy warul di génn di tonton teg yow. Oustaz Oustaz nga sëriñ sëriñ la. warul génn di tonton teg yow. bàyyi da ngay bàyyi ba déglu ko faaw nga koy tàpp di ko déglu yi muy wax yi muy wax waa ngay déglu yi muy wax nit ñi moom ñëpp lay tontu de. moom kay day <laughs> ah, man ma man man wax fa dëgg yàlla man dama ko sopp oustaz bu ma sop la waaye nag dafa mën a defante de oustaz bu pank la ku pànk waaye nag lenn moom maa ngi koy ko ko ko see sénégalais moom ku leen woo ci pànk yaay daw dellu ginnaaw sénégalais yi. dañoo boo yaa loo xamante ne nii barke. Eh, bu yaboo mu bàyyi pànk bi. boo fa demee da ngay réew mi Modou Fall Oustaz Modou moom pour moom moom pour moom sénégalais ñëpp moom la ñuy ko non bon da nga koy baal bon baal ko waay. non da nga koy bàyyi da nga koy mais mais tout yow tout. waaw yaa ba gis sax li ma Oustaz Modou Fall di wax. may yaa koy partagé yow bii la. <laughs> moo tax déggoo ma la lii man la. yow de yow laa ko gisee. ci laa bokk de <laughs> man kay. yow man baara. waaw. yow man mi <laughs>